monsieur le ministre tey dañu am vraiment euh, lu ñuy wax kontaante bu rëy ndax président de la république liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci Sénégal te taxawaay bi africain yi dégg ko yëg ko ñu xam ne liggéey bi du Sénégal rek la koy liggéeyal waaye Afrique rek la koy liggéeyal parce que ndam li moom soo ko amee sërëg dafay mel ci Afrique nga ko am nous avons besoin de nous imposer à travers à travers le monde et travers l'Afrique et loolu duñ ko mën a def tant que amuñu de dignes fils comme le président de la République ak comme yow bi nga xam ne dañu xam le sens de responsabilité xam ngeen réew mi li ci war te yéen ngi ko ciy def te am na yaakaar ne ku ko gisul tey da ko gis suba walla da ko gannaaw suba loolu rek moo am sol ñun ñëpp ñoo bokk réew mi réew mi dañ ko war a liggéey suñ koy war a liggéey nag ñëpp dañ ci war a jàpp parce que suñ ci jàppee fu ñu bëgg a yegg daañ fa yow nag gis nañu liggéey bi ngay liggéey man nekkoon naa ci administration xam naa li ci nekk xam naa teq-teq ci am xam naa rouage ci nekk yow daal yaa ngi liggéey parce que li ñu bëgg ci administration mooy l'efficacité efficacité bi nag lan la da ngay respecter procédure yi dangay ngay am promptitude da ngay am ñoo xam ne tam soo fa nekkul dañ lay liggéey ñun ñii bu ñuy fëgg su sa bunt yi ñëwuñu ci yow directement waaye sa directeur de cabinet bii muy caw sa assistante bii ak itam ki nga xam moo yor sa chef de transit bi muy Moustapha Kane liggéey nañu ak ñoom ci liggéey bu rafet sonn ñu ci dara affaire bi jógee na Chine wàcc aéroport ñu jël ko ma ne man de wóolu naa la wóolu naa ministre bi wóolu naa leen jël ko nga garder ko nga denc ko yéen ñu ko dencal ba tey jii te amuñu ci dara lu ñu naqaree parce que li ñu bëgg rek du du gànna naan lii maa ko indi non. Gane dafa bëgg Sénégal yi xam ne moom fa mu nekk am na lu mu man loo xam ne c'est en dehors du terrain mooy yéen Sénégal yi lii seen préoccupation li si njëkk mooy santé ndax soo amul wér yaram loo sumb du sotti kon yàlla nañu yàlla may wér-gu-yaram yàlla na yàlla may wér yaram loolu moo tax mu jël lii nga xam ne ay extracteur la mooy li li pour nga mën a nooy appareil yi ak test yi ñuy testé ak masque yi mu ne tey yow na la ko jébbal ndax su la ko jébbalee xam na ne da ko dugal fa nga ko war a dugal ndax loolu la réew mi soxla donc ñu ngi féliciter di remercier di encourager yow ñi nga xam ne ñoo la war ñoo ngay liggéeyal parce que am na loo xam ne soo ko bëggee def te amoo équipe bu ko mën a def amoo ñoo xam ne foo leen fëggee ñu def ko du yegg man xam naa administration di gis naa li ngay liggéey kon man am naa yaakaar ne yow lii la président sant attan nga ko da ko yanu te da ko def ni ko président bëggee ak ni ko Sénégal yi bëggee te résultat bi dina am te dana ministre bi yow ñu ngi lay. bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk ci sa tur ak sa sant xam naa ne kawar moom aussi chance ak français yu bëri la bon euh, di monsieur monsieur ministre de la santé mi ñu permettre tey ñu ñëw fii euh, yoon bi yombul woon mais facilité nga ñu ko bu baax. en ak nit ñi la entouré parce que bañ jëndee euh, affaire yi ñu jënd pour ñu indi ko Sénégal métti woon na mais bañ la contacter mu ñu affaire yi ba tey ñu yegg di euh, di remercier tamit euh, ñi nga xam te ne joxe nañ jox teg nañ si seen loxo pour ñu mën a jënd yi ñu jënd tey parce que bañ déggee dafa am ay problème mu pandémie Covid si lañ comme ay doomu dëkk pour ñu def dara si lañ jugee préparé wu ñun ñëpp jug teg si suñu loxo euh, ba def lii ñu def tey euh, di remercier di remercier tamit euh, ñi nga xamante ni joxe nañ seen xaalis pour pour permettre ñu jënd matériel yëpp voilà ah, yow xaw en tout di ñu ngi leen di remercier di remercier monsieur le président Macky Sall ak ci taxawaay bi ñu taxawaay ba ba feebar nañ ko ba xam ne léegi calme na bu baax xam nañ ni beneen vague mën naa leen ñëwaat à à tout moment moo euh, ñu indi dinañu ñu pare préparé wu ba bés ñu ñaan ñu ko yàlla mais bés bu bés bu affaire yi yéegaatee dinañ xam nu ñuy taxawee ba ba mën a xeex ak moom. Euh, j'ai dit à Idrissa tout à l'heure dans le bureau que ne tey di xew ministère de la santé man na am ba yu mel ni yu bëri xaw na fi mais tey dafa am beneen dimension parce que en tant que ministre j'ai le sentiment de recevoir tey sénégalais bi xamante ne si biir ay nawleen am na ñeneen ñu mel ni ñoom yóbbu nañ raaya dëkk bi fu kawe kawe kawe si jom si fayda quand je dis jom ak fayda on peut effectivement inscrire en lettres d'or monsieur le ministre Farba Senghor a parlé de but mais le but le plus magnifique qu'il a marqué c'est de dire je suis là je suis bien là puis teg teg affaire bu kawe kawe et je lui ai dit tantôt que avant de sortir de mon bureau je serai obligé de faire deux choses mon autographe c'est vrai Mais même euh, mon fils, sachant que je viens effectivement pour euh, cette cérémonie importante, m'a donné son portable iPhone pour me Papa, il faut me prendre une photo avec lui. C'est important, c'est significatif. Ça veut dire simplement que voilà quelqu'un qui une fierté pour le pays. Au nom du chef de son excellent le président Macky Sall, maa ngi lay euh, donc euh, wax jaajëf que aussi c'est important. de remercier les gens pour leur pays. Je disais aussi à M. le ministre que le mercredi après-demain, je me ferai l'obligation d'inscrire cet événement extrêmement important dans ma communication en conseil. Ça me paraît important. Il faut que le pays sache que l'un de ses fils les plus valeureux est venu effectivement donner une contribution extrêmement importante pour participer à la réponse contre la covid conformément à l'appel